lamb saake na samba bu lamb saake mbar ma waaf ca keew ba mbokki Sénégal mbokki amateurs yi Brésil production dellu si na borom journée yu mag yi jëmm ji nga xam ne mu dellu si amateurs yi kontaan moo wote waat le 20 mars ci stadium Iba Mar Diop ci combat amateur combat jinne combat jànq bu ñëpp di xaar muy diggante Bébé Diouldé bu écrit Cheikh Mbaba ak Brice Lemaire bu écrit Thiaroye sur Mer mu ne ma li ci gën neex nag mooy bile combat dañ koo jagleel monsieur le ministre Mor Ngom ministre conseiller personnel du président la République nekk ku dar son excellence di képp teg wax monsieur wax le coordonnateur départemental da de Bokk Yaakaar ca Bambey wax ko fidèle ci son excellence monsieur le président Macky Sall ba noppi di def ay preuve am ndax bi mbir yi méttee dafa ne président tëddal nga nelaw département bu Bambey lu mu métti métti danaa ko teg ci sa loxo te na mu ko waxee la ko defee daal di gagné département bi largement ñu ne déeta waaye mu tebbi conseil départemental ba jébbal ko son excellence askanu Bawol yépp nag daal di jóg takk seen digg nekk Babacar Ndiaye nekkoon ci cabinet monsieur le ministre Mor nekk doom ci monsieur le ministre Mor nekk compagnon nekk confident tarbiyewu ko ba tey mu dégg président du conseil départemental Bawol képp di ko safoo di ko béggee moom it faaw ñu delloo ko njukkal daal di koy décorer toftal ci ki nga xam ne foo ko tuddee tudd Reefaat foo ko tuddee tudd Bawol muy tafaatin le géant di Bawol ñooñu la ñu fas yéene président ma yemul foofu ndax dama bés bi dama ciy woo Mamour Dia commerçant ci salle de vente Dame Loum commerçant ci salle de vente ak mboolem kuy commerçant nekk ci Sandaga ci Petersen wala ci Médina maa ngi lay woo ci bés président yemuma foofu saa dana fa jàkkaarloog Agowa Moussa Goy gi jàkkaarloog Bas 2 Thieli 2 jàkkaarloog Barabara armée dana fa jàkkaarloog Salomon Faye carrière 2 dana fa jàkkaarloog Boy Ndiambour garage dana fa jàkkaarloog Pape Yada Faali dana fa jàkkaarloog Boussé ñu ànd ceeg Sénégal clinique ñu fekk si la yomb na wóor na te gaaw na ànd sips cracks ñi nga xam ne noppal njaboot yee leen tax a jóg ànd ceeg seen de télévision yi nga xam ne ba ñu jàppee ba léegi bàyyiwuñu ku ci mel ni Refane TV 2STV Bantamba TV Lutte TV ak Wassare la ñu ne mbokki amateur yi bés baa ngoog le mars ci Iba Mar Diop entrée bu dee loose 5000 francs annexe loose ma ne bi le bés bésu yi la kon bu lu ko kenn nit Mariama Jaay Salam Jaay ñu ngi doon mbokk yi bàyyi xel SBT amaan nañu mbégte ak kontaan ñëw fii nga xam se ni moom mooy Kër ma saar ngeen miin ko lool lool sax ci SBT Média bokk na ci xale yi nga xam ne se ni SBT Média ñoom lañ jëkk a wane muy Milku Sow bokk ci làmb jógee nag ci ñaari saan yoo xam se ni tàkkusaan yi doy waar du ñàkk ñu waxtaan ci moom ndax mbappatam moom yooyu yaax naa duñ ko waxtaane ndax miin ngeen ko ci làmb bu baax a baax a baax Milku ñu ngi lay nuyu waaw ñu lay fay ginnaaw di la onze ñu lay fay yow SBT Média la bëgg bu baax xam nga di bëgg yi fii bëgg lu si mel ni Zouline sama pro bi Assane Ousseynou Jamli xam nga di nuyu Jamila di nuyu tamit soxor si so mu atlee bu ñu fekk nii quoi waaw kii moom wax dëgg fa yàlla lépp lu fi nit toll lu rafet rek moo fay dagg nekk suñu morom nekk lépp ñoo fekk ñu ba si xam kër gi suñ kër lépp xam nga di nuyu tamit suñu papa Ibrahima li di ko ñaan yàlla may ko wér gi yaram nuyu ñoom Jamila Belgique ñoom ñoom lu si mel ni ñoom Idi Sakho xam nga ñu ngi leen ñoom Majeng ak ñoom Rëg Rëg de fils de Falla ñoom Ousseynou Teuf Lampar xam nga ñoom papa Chef Balde ak Chef Gueye Abdoul Gueye ñoom ñëpp sama gars yi daal ak sama simbukat yi nga xam ni carrément dañuy toog rek weekend bu la neex ñoom même simbu ñoom ñoo ko fi dóor dóor fa ay 3 jours waaw di tamit bëgg sama papa ñaaxarañ loolu di ko bëgg waat bu baax a baax gis naa lu muy def si man boo yëpp tamit gis nañ loolu quoi la sant yow di sant tamit ak lu laabu yëpp di ñaan noonu la demee ñu ngi noonu SBT Média la ñu seet si ki xam si mooy Milky Sow dégg ngeen li nuyoo mais li ci nuyoo dafa mel ni ak fan yi t yi may gis ngay kii fii da ñaaxarañ loo la ma wax ci yokk waaw fii da ñaaxarañ loo ñaaxarañ loo dafa ma gis ak bëggal ma boobam yu bëri ay buuse yi ñoom ñëpp ku nekk am na turandoo làmb moom moom depuis combat Balla Gaye depuis combat moom Balla ba léegi la ma gis bëggal ma boobu ñun ñoo àndoon esaat bi booy bi di këf téléphone sax sama kanam ñun ñoo toppoon tamit xam nga après la mu ko benn gaan présenté après tamit la ma ni carrément naa ko seesi ma seesi ko ñu waxtaan mu ne ma carrément naa ko tuddee boppam ma def si mille giso si sa ñaaxaram ñëw mu nekk borom baax pare nag pour def lu nekk sama combat quoi ne ma xoolal promoteur bu la neex mu tëgg sa combat mu tëgg combat ku la neex ma def sama xaalis xam loolu maa ngi koy sant yàlla quoi waaw boo gisee nag la moo tax bëréew man maa toog bañ a bëri di entraîné. kon mooy Milk Sow fils de Niakharagne Lo. Milk Sow fils de Niakharagne Lo. loolu lu bees li loolu mooy loolu mooy slogan wax naa leen SBT Média li nëbbu ah fii lay feeñee li nëbbu fii lay leeree SBT Média Milk Sow gëjoon ci làmb bokk ci làmb moo tax dégg nga li mu wax Milk Sow fils de Niakharagne lu bees sax ah ci SBT Média ngeen ko amee kon SBT Média wax naa leen. abonné leen ba seen tous cloche notification bu ko defee vidéo yi xam ne SBT mi ngi ngeen mën si ànd ñun baax a baax baax du nuyu champion bu di dugg nga xam ne tapet la moom daf maa bàyyi dañoo laal rek mu dafa bàyyi ma mais milk ginnaaw euh, milk soo fii dañaa xarit loo nga jógee ci tàkkusaan sa digganteeg euh, fëgala mu ngor bi nga ko jëlee cooli bëri milk soo war na ko jël waru koon jël parce que moment boobu yaa ko ëppee combat pourquoi nga jëlul combat boobu waaw xam nga tey jii comme lu gars yi wax rek comme lu ñu naan làmb dafa dem ba loo xam du nekk bëri combat coow la quoi xam nga gars yi gisoon ni man ak moom waruñu mun a bëree man tamit ma gis ni moom man bëgguma sama morom bu ma topp di ma laaj rek bëgguma loolu après day mel dama la ragal xam nga sama ménagère rek yëpp bañ ma leen baale mu jël combat bi xam nga tamit yàlla dogal tamit ba ma ko jëlee tamit wax dëgg fa yàlla ñëwuma esaat xam nga bëre fa bëre bu yambare wala dara indi ma fu match ni indi ma dara ñàkk naa par quatre appuis yàlla may ko ndam di ko ñaanal yàlla mais nekkul woon sax sama yoonu làmb xam nga loolu tamit wax dëgg fa yàlla. moom mu ne woon mu ne woon combat bi xaalis moo tax nga jël ko. te te te te te maanaam xaalis moo tax nga jël xaar bëgg xaar rek moo tax nga jël ko mais xam nga ne combat bu nekkul combat boo xam ne ci am dara waaw gis nga gis nga maanaam fëgal bu ngor yàlla may na ko ndam mais booyoo noonu man ñi ma xam dëgg dëgg dëgg dëgg a daan ay fëgal bu ngor yi a daan que alxuraan fëgal bu ngor maanaam champion la quoi bàyyi faa la nag borom baax la sama lonko la mais man ñoom waruñu a li nekk si man néewul sax si ñoom c'est combat wu xam nga nu nu mu demee la rek ak tamit war a daanu ak tamit mënoo ñëw tamit nga nuñ ko du nga nga fay promoteur bi indi indi sa parrain indi sa lépp ñu may la nga dugal sa taamu masoor ak lépp mbër bi ngay bëreel may ñu ko mu dugal taamu masoor passé wul 5 personnes lu mu dugal yow nga dugal plus de 15 personnes xam loolu nag daal dama ko ñaanal yàlla may ko ndam ndax wax dëgg fa yàlla victoire bi moom du ma si salteel dara jaar na ma xam damay xool leen nekk sama kanam quoi waaw. mais après combat bi for naa dégg naa coow amoon na parce que dégg naa mystiquement booy bi daf la jàpp. waaw man combat boobu wax dëgg fa yàlla li ma dal sama combat yi passé rek bi may dem stade waaw comme combat fëgal bu ngoor wax dëgg fa yàlla boo bëggee dégg dëgg bi may dem stade man nee naa même sama jàppee bu may raam sax damay dem du ma yàq benn làmb naa dem foofu ñu jox victoire sax loolu garaawul mais promoteur du ma fay xaalisam may toog fii ne du ma dem stade combat wax dëgg fa yàlla nekkuma si benn yoon barke Serigne Saliou Mbacké bu ma duggee si géew bi dama nagam carrément wallaahi azim man musuma ñëw jàpp di taxaw mu duggee si géew dama nagam carrément ak tamit ma ñëw ma jëloon poids boo xam ne moom ma ko mu fournir ma teel a sonn après damay su ma koy fàkkee noonu mu calme ma rëpp kat abi xam nga mais wax dëgg fa yàlla moom ba mu jógee si combat boobu tamit xam nga jàngat naa lu bëri daal waaw surtout instant bi ñu toll nii. parce que euh, combat boobu parce que gars yi dañuy wax ne làmb amul mystique nangam naa am kon combat boobu ci nga gëmee ne làmb mystique am na. waaw man mii sax di wax yow si gars yi laa bokkoon si gars yi doon wax ne làmb amul mystique dama doon bëri xam nga ñenn ñi rek ñuy ñëw indi mu ñëw lépp rek sama sañ-sañ laa doon demee. mais waaw tegtal mais làmb dafa am musique man ak Feugeul bu Ngor xam naa ne làmb dafa am musique maa ngi Feugeul bu Ngor bu mu defee 10 jours lañ sàcc sama Beverly buy jar 800000 bu bees tàq te man dama bëgg moto may xalaat moto boobu noonu ba feebar tal sa sax entraînement ndax moto bi yàlla xam na ko ñun nag amal ma carrément comme am lu mu si deful am lu mu si ñàkkul xam tamit des fois di nga bëri tamit ñu def la loo xam ni carrément yow maanaam c'est lépp lu ñuy téye te man moto boobu moo nekkoon samay ñu jël ko même pas 10 jours ma ñàkk ko ci xam nga dem bëri jeeg moom wax dëgg fa yàlla mu neex ñu tojtal ma si côté lu bëri waaw mais tamit dama koy sant yàlla rek li tax après dina ma a yeeku waaw waaw. nga jógee fa euh, sa wax ci diggante ma Feugeula bu Ngor ah, parce que man après kii bi sax nii ay taab yoo amoon ak lu wér waaw sama taab yooyu moom yàlla yàlla bu ma yàlla bu ma dalaat rek ndax loolu moom wax dëgg fa yàlla demoon naa benn instant damay foog ne ma naan lii est-ce que si mën a bëriwaat ndax ay taab yoo xam ne say baaraam day dugg si biir nga koy nettoyer di def lu ne ma toog affaire bi jaaxal ma après nag la ma yàlla booleel sama benn chef benn policier bu baax bu ñu naan Ousmane Diom xam nga yóbbu ma yóbbu ma seen dëkk yóbbu ma simal xam nga toppatoo ma teg ma këram defal ma lépp man dama am ñu ñoo xam dañ maa bëgg di ma jàppale seen kër foofu kër mu nekkoon juróom nangu ma ko génnee après fa laa dem faj ba wér xam ma après tamit laa ñibbisi waa yàlla tamit defal ma jàmm dëgg yàlla ma nekkaat si activité yi tamit mooy loolu jógee ci boobu jëlaat benn xale boo xam ne bokk na ci yi nga xam ne nii euh, làmb leen bàyyi xel muy jeex jaam pourquoi nga jëloon jeex jaam. wóor na yàlla jeex jaam maa ko mën. barke Serigne Saliou dara taxul may wax nag mais wóor na alxuraan jeex jaam war bi nga wax de. billaahi wallaahi jeex jaam maa ko mën. Grand Dakar ngay wax de. wallaahi aji maa mën jeex jaam mille fois sax bokkuñ ñenaa la mën ak booyee noonu bokkuñ sax ku xam Milki soo dëgg dëgg dëgg ah maanaam juumal ba juum benn jour nga toog ak Balla Gaye 2 wala Sa Thiès nga laaj ko yan qualité moo ne si booy bi xam nga lan lay ko wax boobu de bu caaxaanul làmb kenn du ko daan war na yàlla booyee maa leen mën après tamit laa jël sama combat maag jeex jàmm tamit xam nga fekk tamit nit moom dinañ la def loo xam ni carrément sa yaram pareegoo xam nga sa yaram pareegoo xam nga rek ñëw tamit leneen tamit bëgg a sëfuwaat kaw day metti maag jeex jàmm tamit ñu bëre xam nga yàlla def sama préparation combat man ak moom njëkkoon nañ ko jàpp avant tabaski bi ay taab sonaloon ma si moom tamit sama taab bi génnaat xam nga def ñu annulé combat boobu noonu man ak moom tamit ñuy dem ñu dem ba combat bi ñëwaat combat bi def deux jours deux jours maag jeex jaam booy sax loolu leen jaaxal sama tànk yi génn ay taab yoo xam ne xaw ma nu mu toll après lañ ma booleeg sama benn paa bu nekk gànjaay maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy jaar bu baax paa jinne xam nga ay mbokk ñoo xam ne ñu ma waa waa Fatick yi boole maa moom ba ñu ginnaaw sobal combat yóbbu ma foofu noonu mu jàppale ma ba yaram mi a dal jàmm ba jour laamu ja ma mun a dem laamu ja xam nga man bi may jóge fii dem laamu ja barki salaatul fatiha bëre moo taxoon ma dem nee naa naa bëre ba pare sax lu leen nekk dal ma mais bëre moo tax mu jóge fii def sama regroupement fay lépp ñu def lépp ànd ak suñu gars yi dem esaat xam booy kenn bëggul woon mu bëri mais man ma ne carrément baale dem laa ñëw arbitre dañu làmb noonu gis sama tànk bi mu ne mën naa dem ma xool ardo ardo ñëw làmb sama man ko lii fan yëpp moom laay contacté ma fen ko yi moom laay contacté mun naa si bëre mais damay dégg des fois ñu bëri ñu naan Milkzo moo won arbitre bi tànk bi te man ku ma gis foofu noonu maa ngi xuloo ak arbitre sax ndax tànk bi man ko na ma bàyyi ma bëre man xaw ma loolu xaw ma yàq làmb jàmbur xam nga combat nag jàll na tamit mais jeex jàmm instant yi man mënu ma ko dara mais incha allah rabi jour na ñëw bu mu yàqamti dara jour na ñëw man ak moom ñu dalante sama adversaire billaah ñi ma bëral ñëpp ñoo gën a métti booy yi man jeex jàmm ëppul Bébé Xarañ doole ëppul barbar doole ëppul tafaaleer numéro 2 doole te ñooñu daanu ma leen si une minute xam nga kon tey jeex jàmm bu bëggee toog fii di wax man nekk nag booy bu yaru am na combat tamit xam nga moom su lay mais man yaa xam tuuma dara sama àdduna mais leen rek laay wax mooy sama morom yi war a bëreel dañoo war a ñëw ñu bëre. non dama jeex jaam parce que après combat bi coow lu nekk judd na si Milk Zo dafa ragal ah, est-ce que Milk Zo ñëw na dégg naa sànq naan man ak booy du làmb booy maa leen mën problème lan la Milk Zo dafa ñëw ci làmb ji wala lan la. non Milk Zo <laughs> tey man comme li ma lay wax rek ñëw naa si làmb ji pour bëre man mais xam naa ni Milk Zo bi doon ñëw. bi doon nekk di bëre combat bi mu ngi jour boobu jour boobu nekk fa yaa ngi comprendre tamit nit des fois dinañ la def loo xam ne carrément yow maanaam affaire làmb la rek waaw man tamit côté boobu noonu dañ maa fay fay ko waaw man tamit su ma xoolee ba moom mu njëkk maa jóg kon loolu man sama faute la mais loolu ne da lay jàngal quoi mais Milkzo bu ñëw état nañ fekk nañ fekk ay combat Milkzo yëpp ñu xool Milkzo bu ñëw état ndax Milkzo dina teree nag booy. kon la su ma la déggee fi ne sa nekk na si. Eh, yàlla may la jàmm may jàmm ba ngeen dox laam boole waat barki Serigne Saliou laa la waatal nii nii nii nii nii nii bu doon ginnaaw suba mën a jeex jàmm wala mën a keneen billaahi du ma bëri moom une minute barki alxuraan booy mos dajal jamono ji déggoo ma ne leen laataal entraînement ñëw reer tëdd nelaw jeex na booy tamit dama gën a dooleel lu ci mel ni ñoom jou sama pro bi ñoom soxor ciseau xam nga gars yi di ma jàppale ñoom Ousseynou Jamli ay ñoom Giri 2 Reug Reug 2 di ma jàppale tamit côté boobu noonu sama xel dal quoi nga mel nga am lu mel ni ñaaxalañ loo lan ngay faale koo xam ne loolu na mu def jàppaleel côté bu ne xam lool loolu noonu tamit bàyyi damay sant yàlla rek waaw muy loolu daal. laay ñu noonu SBT Média la ñu dalal ki nga xam si ni moom mooy Milk Sow fils de Niang Xarañ Lo ah, nee na léegi affaire noonu la ci SBT Média lay génnee ci SBT Média lay leeree di nuyu nag képp koo xam ne rek yaa ngi safoo SBT Média rawatina ñi nga xam ñoo nekk si diaspora bi macha allah ah ñoom biiru may ma ngoone VIP làmb ji pour cent SBT bi maa ngi ñëpp rek képp koo xam ne rek SBT média ngay safoo rek di wax ne tey ñi ngi Kër Massar nag seet ndaana dëkk muy Milk Zo fils de ñaaxariñ loo léegi léegi ginnaaw ñaari nga tegale deux défaites nag Milk tegal deux défaites te bokk ci làmb non non non mais mais mais dafa arbitre c'est le Méditerranée moom lañ jox victoire mais bëri ma ak CNG défaite moo fa nekk jeex jaam man ma neexoon su ma mun naa bañ a dem esat xam mais man bëriwuma maag jeex jàmm boo demuloon esaar bu ñëwee moom bu ñëwee ba esaar forfait la ñu dañu koy wax la défaite la moom la jox victoire ah. mais man ak moom bëriwuñ mais man ak moom xam naa ne jour dina dinañ laale te buñ laalee nag dina dina comprendre quoi sa diggante ak jeex jàmm moo nekkoon sa ñaari combat sama diggante ak jeex jàmm moo nekkoon sama septième jaawale quoi naan man damaa bëri xaw ma man maa njëkk daan caatu sébi caatu sébi laa njëkk daan bari ñi man quatre victoire laa am waaw daan barbar daan barbar daan tafaaleer daan beba xarañ doomu yoof moomu daan doomu yoof ak fëgale ba ngoor waaw jeex jaamu bëriwuñ daanu ma lañ tax victoire waaw na ko na ko jig ah. yéen dee jox na victoire mais bu ñu laalee rek mu xam ni carrément daanu te mënumaa daan waaw léegi fi mu xam nga lu may bañ fi ñu ne ko maa nga naan non sama taa bi dafa béy wut sama nang est-ce que actuellement nii macha allah état de forme bi nice actuellement nii Milkzo ah. billaay sama xel dafa dal macha actuellement boo boo bëggee dégg-dégg xam nga ñu ngi neen koor gi léegi mu ñëw ko quoi yàggul le 3 mais wallaahi mars bi dimanche bii ku ma si joxoon combat ma bëree boo gisee nag la moo taxoon mooy instant mbaay dama nekkoon si entraînement ñu topp ma tamit ak benn mbër bu ma doon doxal quoi muy Tafa Gueye 2 affaire bi nekkoon am problème de xaalis ak yooyu noonu xam nga moom loolu ko tee woon quoi tamit di ko ñaan sans quoi di ko ñaan sans moom tamit xam suñu grand frère la mais man lu ma gën a man bëgguma sax loolu man lu ma gënal mooy bëri sama moroom yi sama morom ay lamb yu neex ngay ay lamb yu neex la promoteur yi tëb nii. jox sa ñaari morom ñu defaral la donc gën a léegi naa dem ci paa yi ñu may ma chance quoi non non non loolu. billaay ma sax ndax Tapha Gueye de su ma gënaloon billaay wallaay wa taala ñaax lañ loolu dina ko fay ñu bëre dina génne xaalisam jox ñu bëre mais man ma si bëggul sax sori laayal ndooy du ma ko sax wax lu bëri mais xam nga laa bëgg bëri combat jàng combat yu neex man lañ ma xamee. waaw léegi combat yi neex doo wax say morom nga